jërë ngeen jëf mbokki interne du 313 digital ñu ngi leen di nuyu bu baax amaat mbégte contentement di ak yéen ci seen acte 10 jours comme euh, ni ngeen ko baaxoo di amee rek tey nag lii lëmbaaji waat réew mi rek mooy Mamour Diallo mi nga xam ne kon déglu nañ ko ni kii démb fële ca euh, palais de justice ak ki nga xam ni moom moo di doyen des juges gannaaw ba ñii di awkaay yi Ousmane Sonko defoon rek ak càkkutéef ngir ñu déglu ko ci mbir boobu noonu ñu leen wax dañoo jàpp ni euh, moom jàll mii mi rek moom mooy njàkk ndax uh, lañu ñu jàpp te gëm ko mooy moom moo nekk ci ginnaaw mbir mu ne mel gannaaw ba ñu tuddee ay turam ci mbir mi ay yooni yoon ba tax kon ci noonu ni kii démb daane nañu koy déglu ci du euh, Sénégalais yëpp yëgul moom mi nga xam ni moom moo di Mamour jàlloo euh, moom mi nga xam ni kon dañu ko doon tudd rek ci wàllum luubalu 94 milliards kon tey ji li ñu koy tuddaat rek mooy complot boo xam ni dafa nekk ci ginnaaw seen sa ndaw suñu woowee Adji Raby Sarr boo xam ni da koo jàll ci genn kilifa gu ñuy euh, woowee Ousmane Sonko jiite parti Pastef fii ci Sénégal moom naka la mu xamal. ki nga xam ni moom moo di doyen des juges rek moom Mamour Diallo mooy kani euh, moom bi mu duggee ci mbir bi rek mooy bi nga xamante ni si ni lii di viol kon daal di nay am ci la daal di dikk euh, fa yéene jàppale ki nga xam ni moom moo di gone gi nga xam ni kon na dafa nekkoon ci ay njàqare ak tiis moom mi la di Mamour Diallo waaye nag leneen li nga xam ni kon amaata na ci moom Mamour Diallo daay nay euh, suivre kon na topp bu baax a baax consigne consigne yi nga xam ne ñoom la ay avocawam digal mooy rek mu bañ a tontu question yi nga xam ni kon na kii di doyen di juste daal di na koy laaj ba tax loolu ñu la kon jur coow bu bare ba gannaaw ba ay Sénégalais yu bare itam d'accordoon ci ñu déglu ko moom mi la di Mamour Diallo nañu ko dégloo nag moom moo daal di ëlëm askan bi ndax dañu ko daal di daar daar rek déglu ko moom jàll ci loo xam ni kon askanu post Sénégal yëguñu tinuñu ci looli nooñu le mbokki intérêt note yi audio yi ñoom ña ngay wéy di gën di jalaa ñoo ndax beneen audio boo xam ne rek moom Alaaji Diouf ak gone ji di Adji Sarr ma nga cay wax ay wax yu ñàkk teggin xam naa ni mbokki intérêt du 313 digital loolu duñu ci mën a jaar waaye daal lu ci manti am wax yamu cay wax ñàkk na teggin loolu te doy waar kon mi ngi noonu moom mi la di Mamour Diallo loolu comme nañ leen ko waxee woon na ci njëlbeen gi rek déglu nañ ko eh, ci biile mbir ñun itam ñu wéy ji leen toppal mbir boobi noo ni le ba leneen lu ci eh, manti am ñu indi leen ko fii ci 313 digital laata loolu wéy leen di abonné ji bës ci cloche notification bi ndax ngeen di mën a jot suñu ay vidéo yi ñu ci dugal jërë ngeen jëf